lu ma saf am naa ci yow lu mos naa ci yow lu ma saf ngëm naa la dootuma ba yaa nëbb jëpp ayib yaa feeñalit lu rafet yaa boole ñëpp defar fal ñëpp kenn du la ba ndax day kërug barkeel day kërug goo xam ne ku fi dëgg sa fi dëgg saf tànk man ngaa war ci yàlla ne dëgg nga foo xam ne eh, sëñ Mbàkke Soxna Lo daana fi teg tànkam kër la goo xam ne magi taalibe yi ak seex si ak jëwriñ yi daanañ fi ñëw di fa dajeeg jëwriñ yi tedd yooya jëmm yii nag da ay doomi soxna da ay doomi seex da ay kilifa da ay magi taalibe waaye di ay dongo ñi murikoo ñi muritoo Taïf ñi muritoo Bayla ñi muritoo feneen koo xam ne sëñ seen mi tey jaar na foofa nga xam ne tey jii bu ñuy wax borom borom bay laa Serigne Cheikh Ndigal mooy jëwriñ joo xam ne dégg naa ci làmmiñu Baye ñu bay ma ca Mbuur moo xam ne Serigne Cheikh Ndigal jàmbaar la ndax biñ koy indi ci daara ji fala la ma fekk. kon nag doomi Cheikh yi Fall ñoo ñëwoon doon siyaare si ndax liggéey bi ñu jox sa mag ju baax ji muy Serigne Cheikh Fall borom ndigal liggéey bi ñu jox liggéey liggéeykat boo xam ne xam nañ ngoram ak dëggoom akuk taalibeem akum jubam sëñ Moustapha jox ko liggéey bii dongo yi daje. ñoom kat gannaaw ba fii mooy seen wàccuwaay fii mooy seen dalluwaay ku jógee Touba baa nga jógee tayif baa nga jógee Bayla baa nga jógee Touba fii mooy sa dalluwaay nañ ñëw fësal seen yéene sëñ Xaadim ne woon buñ ñëwee ci kanam sëñ Cheikh Mbacke mi sëriñ bi teg danañ jëyal seen kaddu jëyal seen yéene xam ne kat liggéey bi ñoom lañ koy defal kon loolee ñu doon ubbee kaddu ubbee la sëriñ Xaadim kan mii nga xam ne jiwlu na ci daara ji moom la moom la ñuy jox kaddu gi la ca des moom moo koy mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw jërëjëf xanaa kon ñu ngi wax ak sëñ Mame Cheikh waaye nag ñu présenté kii suñu mag murit Baye Jamil Diop mooy suñu mag li ñuy def lépp ci ndigalam lañ koy defee maanaam loolu moo ñu jox ndigal ngir maanaam ñu jot kay koy dañ jox sëñ Mame Cheikh moom it wax xëy na suñuy siyaar ak suñuy suñu aouzu billahi bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Cheikh Mbacke mu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Xaadim Kan ak Baye Jamil ak mboolem jamaatu murid saadix ñi nga ne ñoo nekk fii ci Ndakaaru waaye am seen jëwriñ ak seen fédération muy njiit la di sëriñ Baara loo moom sëñ Modou Lo Mbéré mel ni que liggéey bi nga xamee ni moom lañ leen sëriñ bi jox fii ndigal ngir weesal kër sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé ma gi di doon kër goo xam ne ñun mooy sunu agence ni ñu ko mën a waxe fi la ñuy lijjanti ko ci lu manti doon mooy sunu delluwaay ci mu manti toll mooy sunu béréb bi nga xamee ni lépp lu ñu yittewoo ngir dajaloo fii lañ koy def see ngir yàlla ak jëm Serigne Cheikh amalee ko ci sunu ay wajur ba ci ñun ñii doon liggéey boo xamee ne lu ñu ñor la lool mu doon loo xamee ne it lu ñu bàyyi xel la lool mu doon loo xam ne it ñu yëgle ci sunu bopp mel ne lépp loo xamee ne def na ko fi mel na ne dongay laxasaay yi lañ ko defal waaye dërëm bi génnu gaal gi ndax kenn du lim dongay say yi dëgg la ci Serigne Cheikh Fall jàmbaar ja nga xamee ne li ñu doon doon tuut tànk ba nu si ay jalooreem yegg na ci sunu nopp ba nu duggee ci daara ja te diggante ba mu fa jógee bu nu fa ñëwee du néew néew mën naa mat fanweeri at wala ñaar fukki at kon defe naa ne loolu yi mooy marqué bi ñuy wax sa empreinte dëgg-dëgg kon ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare bu baax ta di ko ndokkeel bu baax te di ko ñaanal li nga xam ne sumb ko yàlla na ko yeggalee te na mu gën a rafete barke Cheikh Mouhamadou lépp loo xamee ne ndam la wala mu ciy doon lépp loo xam ne def na ko fi ci ndam yàlla na ko boole ak mboolem taalibe murit yëpp waaye mboolem képp koo xamee ne yaa ngi wax asadu laa ilaha illallah ndax loolu xañ bi ndax jëm ji nga xam ne kat moo sosoon liggéey bii di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké dikk fii ci digg Ndakaaru ci capital de fi kër gu mel nii lii de sagub lislaam la sagub yoonu murit la kon képp koo xam ne yàlla dugal na sa ñaq dugg ci war ngaa dalal sa xel bu baax a baax ci ne li ñuy wax ah aqdim moo turan li laay doona mën nan wa bilaa tanaay jooju sëñ Tuubaa di wax naan bu demee ba nga xamee ne gàjji nañ sarat ci kaw jaxanama dana am ku nodd ca kaw naa daa mu naa di yéen ay na ahlal xidma lil muslimina am ñu tontu mu ne la yéen da ngeen dem dugg àjjana yéen du ngeen xaar kon képp koo xamee ne sa dërëm wala sa ñaq tuuru na fi war ngaa mën a gëm na ci ñi liggéey julli ñi ci nga bokk ndax kër gi bokk na ci kër yi fi njëkk présenté l'islam ci biir Ndakaaru kon defe naa ne loolu lu daram xel la ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen wax ne ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen bi nekk ci seen biir lépp loo xamee ne rek lu ngeen def la fas nañ ko yéen a ànd ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Cheikh Mbacke Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Baye Góor nee na ñu ngi sant mbooloo moom baax a baax a baax a baax a baax nee na ñu ngi leen di nuyu bu baax nee na mbooloo mi fi ànd tey ji daje fi di ay dongoy daara mu mel ni sëñ Cheikh Ndigal mi yor liggéey bi tey ñoo ñoo bokkoon fu mu nekkan bokk lu ñuy sakku ba yàlla am lu mu ko cërale nee na mu bokk ci li sëriñ Cheikh Ndigal ji nettali nee na suñ Cheikh ndigal nee na suñ Cheikh Mbacke génne Fatma daana wax ni. yéen ñi ne ci àll bi liggéeyal sëriñ bi. bàyyi seen ndey bàyyi seen i bàyyi. di wut yàlla. su ngeen nekkee ci daara ji. te jaar fi ngeen war a jaar. di ngeen am yàlla. ñu nekkoon ci adduna. dangeen ngeen fekk leen ci àdduna boobee. ëppale leen ci. da am yàlla ba noppi. ñëw ci ñiy ut adduna. nee na nga ëppal leen ci àdduna jëm wut te loolu ñun teg nañ ci suñu bët kon loolu jërut sori nee na ni ñuy def daal mooy sant leen bu baax a baax a baax na ba ngeen xamee la ngeen war a xam ndax kër gii nee na wax naa ko keroog ba ñuy tàmbali liggéey bi fii nee na kër gi day kër goo xam ne gor su dugg na sa bët xonq nga génn sa mbir baax nee na loolu yàgg na ci kër gi yàgg na ci kër gi nee na loolu taxoon suñ Cheikh Mbacke wut kër gi kon kër gu mel noonu su rappee ñu koy defaraat ku a bokk sa ñax dugg ca sa wërsëg dugg ca war ngaa sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin nee na yéen nag dañ leen defar moo tax nee na kuñ defar moom waxtu wu nekk day xam la muy def nee na moo tax ngeen doxale nii kon nag jërë ngeen jëf. ñu ngi bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax. di ñaan liggéey bi di ñaan liggéey bi ñu bokk ànd. ci barke borom liggéey bi. ci barke borom liggéey bi. ak jëf jëm jëfoon. ak gor yi sonnoon dugg yàlla sunu mbir baax yàlla na seen mbir baax nee na seen mbir baax nee na yàlla na sunu mbir baaxee nu kawe ci barke borom kër barkeeb Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi nee na dafa nañ njort bu baax nag nee na léegi maa ngi wax ak magum taalibe léegi nee na mu ne ma sëñ Moussa Ndiagne ku fonk sëñ Cheikh ndigal la ma ne ko lu tax mu ne ma liggéey bi ku la ko jox ku la fonk la te loolu xam nañ ko noonu kon nag jërëjëf sëñ a waaye yeneen taalibe yi jërë jëf jërëjëf sëñ Cheikh ndigal mi nangu liggéey bi te bool nañ ci noonu kon nan bokk wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin nee na ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim te yeggalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin nee na te sunuy mbir ci faaw nag min muy mbiri fii ak fën jëm ëllëg jërë ngeen am naa ci yow lu ma saf mos naa ci yow lu ma saf ngëm aa la duutuma ba yaa nëbb jépp yaa feeñalit lu rafet yaa boole ñépp defar fal ñépp kenn du la ba